mu daal di ñëw fekkee bile cérémonie ay taalibe homme politique wala sax acteur société civile ñëwoon fii ci grand théâtre tey nekkoon cérémonie dédicace livre biñ tuddee phénomène général Kara livre bi di dellu si bu baax a baax si jaar-jaaram di ko bind di soxna Jee Mbàkke la nag ci ku mel ni Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke noonu ni moo raw ndax euh, dafa am ay melokaan yu bokkul euh, yàlla daf ko defal tamit mu nekk koo xam ne euh, Cheikh Ahmadou Bamba ma Rassoul rek mooy itam. bile livre mu tàmbali ko bind ci atum 2020 ñeenti at a ngi nii mu nekk di ci liggéey ngir rekk daal di xamle waat bu baax a baax ana kan mooy Serigne Modou Kara Mbacké nii li jàpp mooy nit ñi dañ koo desee xam ba léegi. may nettali euh, ay xew ci ci àddinaam mu nekkee tout tànk bi mu doonee mag bi mu doonee xalifa Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni Mathia Beyti euh, noonu daal laa ko bindee. moom mi lay doon soxna si Serigne Modou Kara Mbacké tax na muy xamle ni yombul benn yoon daal di bind si sa boroom kër wante tamit dellu si waat ki nga xamante ni nii dafa nekk rek benn guide bu multidimensionnel. ah diggante bi de peut que su rattaxul woon neexul woon. mën naa am duma bind ci moom mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku jaboote ñëpp mm-hmm. euh, koo xam ne xol bi dafa weex tal tal tal mm-hmm. xam ne ñëpp la yéene lu baax euh, te lépp daal ku ko bëgg jàppale daal jàppale ko ci jërëjëf sañ Touba